dal nag ak jàmm yéene kaay yépp laa wax tey dañoo xëy ci assemblée nationale ak pencum ndaw réew mi quatorzième législative bi nga xam ne moom la ñuy samp tey kan la ñuy samp Walfadjri grand place ne yeeweek wàllu tey la tey waaye suba la nettali bi diggante Ahmed dara Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz kan moo ci nekk président assemblée nationale Le je yéene kay ne yeeweek wàllu au perchoir ñoom kenn ku ci nekk bëgg doon séddale bukki bii bukki bii njuur bi Samba gii ki ndeyam dee diggante Ahmed Aydara limi Diaz ak Serigne Bara Bakay Dolly Lamine Thiam bu parti démocratique sénégalais la tribune yene kaay ne ambition yu yeewi ak wàllu moo nar a tas yaakaaru askan wi ndax askan wi liñ doon xaar ci ñoom le tribune yéene kaay ne kenn ku ci nekk samp benn ndënd ndax askan wi loolu lañ doon xaar ci ñoom libération yéene kaay ne tey la altine tey mooy dëgg dëgg dëgg li ñuy xaar ci assemblée nationale l'exclusive yéen kaay ne assemblée nationale bi coup de théâtre du fa am tey l'observateur yéen kaay ne benn fauteuil la waaye fukki nit ak juróom-ñeent soxla nañu ko muy Ahmed Aydara Barthélémy Diaz Lamine Thiam ak guerre bi nga xamante ne nii waa benn Bokk Yaakaar kenn xamalu leen dara ndax conclave lañ doon def fële ca sali du ma soli dara sali mbuur laay yem benn jaaykat kenkaay yëri moo fa jàpp benn xale bu jigéen bu ndaw euh, tëddee ko astafirullah l'exclusive yéene kaay dellu seeg ñun ca la xew fële ca Malika muy lu doy waar muy mbënd mi nga xamante ni nii tàmbali naa sonal askan wi tàmbali sona it ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ca Malika ndax benn ñàngoor bu am ñeenti meetar moo fa génn bu leen sori mètre taxaw leen tuuti ma wax leen jaase sow li mu def ci biir libération yéene kaay bu ñii di takki jabar ñii di xool ku ñuy doxaan ñii di xool ku ñuy nekk Ndiasse Sow moom juróomi xale yu góor la dajale di leen tëdde ñii fukki at ak ñett ñii fukki at ñeent kii moom ku ko tuddee mbaam baa nga tuddee ko leneen bu la neexee nga jàpp loolu waaye li ngeen mën a jàpp daal mbokk yi mooy songante TV ñëw na song na askan wi yéen daw leen song ko ñu songante kon mi ngi noonu ñoo leen ko digoon ñoo ko def wasalaam.